ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi itam suñu yaakaar Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal itam suñu borom mu guddal fanam lool te wéral ay cëram bàyyi ko suñu kanam ba ca kanam a kanam a kanam di ñaanal itam xalifa diine yëpp yi nga xamante ne ñoom la suñu borom teg ci umma islam bi seen loxo di ñaanal itam suñu mbokki jullit yi nga xam ne ñoom lañ bokkal Sénégal te bokkuñu diine suñu borom defal leen jàmm ñoom itam Euh, ay mbokki taalibee yoo xam ne ñoo daje tey am waxtaan woo xam ne moom lañ bëggoon a jàllale ci seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe moo xam ne ndog dafa dal ci kawam mu doon loo xam ne itam ginnaaw ba ñu nangoo dogalu suñu borom ñuy def ay sabab yoo xam ne day wane ne suñu xol ak suñu xel ak suñu jëmm ak suñu kattan lépp dara weesuwu ci jëmmam moom jëmm ji nga xam ne tey suñu borom dogal na ñu di ko tudd ci coow li nga xam ne dafa am ci tribunal bu Jurbel yàlla dogal itam mu doon loo xam ne itam ñun ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoom tey góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñëpp dañoo ànd boole seeni doole boole seen kattan boole seen alal boole seen lépp ngir soutenir ko ci mbir moomu nga xam ne li ñu fi indi tey mooy leer gum ñu leer ne dara laalewu ci ak jëmmam jooju te loolu itam moo waral taxawaay bi tey ñu ànd ko ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk kii nga xam ne moo fare sama càmmoñ mooy Serigne Mouhamadou Mbacké Euh, kii mu àndal di Serigne Khadim Mbacke ak Serigne Saliou Fall moom Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall ak waa Njaareem gépp kenn desul gox boo dem rek am na jëmm joo xam ne moo fa jóge ngir teew ngir jëmmi kii nga xam ne tey yàlla dogal na ñu di ko tudd ci coow li nga xam ne moo am tribunal. xëy na fan yi ñu génn kenn ku ci nekk dégg na ñuy wax benn ASP boo xam ne dafa am jafe ci tribunal bu Diourbel ñu bëgg leen a xamal ne jëmm jooju loolu nga xam ne moom lañ teg ci ndoddam ñun ñi ñëpp ànd nañ. gëm ak itam dëggal ne dara loo xam ne lu ci nekk wala loo xam ne lu mu laale la amut nit nag mën nay publier mbaa mu dégg coow jàpp ne coow la noonu la demee waaye li wér te wóor mooy ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ak moom te ñun ñi nga xam ne xam nañ ko xam gu wér ne lii nga xam ne moom lañ teg ci moom dara doonu ci loo xam ne lu mu laale la ñun nag yàlla dogal na ne am nañ ay kilifa kilifa yu ñu am fii ci njaareem mooy Serigne Fallou moom Serigne Bassirou dem nañ ci moom waxtaan ak moom ci coow li ni mu amee kii nga xam ne moom la mbir mi dal ci kawam mu doon taalibe Serigne Fallou Serigne bi yebal ñu ci ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Souran ñu dem ci Serigne Bassirou Souran waxtaan ak moom ci li nga xam ne loolu la ñu Serigne bi wax ci ndigal loolu ñu Serigne bi jox nag ñun ci lañ fas yéene tënku fas yéene wuñ koo génn te lépp loo xam ne moom Serigne bi jox nañu ko comme ndigal dinañu ko jëfe kéem ni mu ñu ko digalee daa fekk na nag am na ci wàll woo xam ne moom la ñu bëgg a yeggale muy wàll wi nga xam ne moom la ñuy def tey muy point de presse bi ñuy def ngir yëgal képp koo xam ne yaa ngi dégg coow loolu ak yaa ngi gis coow loolu jëmm jooju nga xam ne moom lañ ciy tudd innocent la ci lu fa mën a am. xëy na nag yàlla dogal na ne maîtriser wuñ droit du ñu dugg ci biir dossier bi di wax naa nii la demee ak nee la demee waaye ñun li ñu wérte wóor mooy di woo jullit yi di woo mbokk yëpp di leen xamal ne jëmm la joo xam ne lii ñu koy def laalewu ci dara. li waral point de presse bi nag ak métti gi mooy ñu ci gis nga xam ne moom kenn ku ci nekk miin na ku ci dëkk bi ñu ne mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax ñëpp seede nañ ne ba mbir may xew ñaari nit ñoo fa nekkoon muy moom jëmm ji nga xam ne moom mooy liggéey ca barab ba waaye tamit am na jëm joo xam ne yoon moo ko fa yebal mu war a garde barab ba moom jëm ji garde du mbiram liggéey dong la doon def wàcc dem ñibbi am na kuñ fa yebaloon mu war koo garder ka ko waroon a garder xamuñu ma nga fa woon xamuñu nekk fa woon. waaye ñu jàpp ne bu fa nekkoon itam bu ñu koy dajji mbaa bu ñu ko bala ñu koo dajji ba yeggal dana yëg ne dajji nañ fi wala ay nit a ngi fi kon kooku am na ci responsabilité te fii ñuy wax ak yéen li ñu gis mooy jëmm jooju nga xam ne deful lu dul liggéey moom lañ jël denc ko ci kaso bi moom ka waroon a garder nga xam ne moo fa waroon taxaw doon agent de police moom ci jëmbi boppam mu ngi fii di dox ay soxlaam kenn teewu ko kenn gardewu ko kenn defu ko dara te loolu mooy li ñu metti waaye bu ñu leen boole woon ñoom ñaar ñëpp jàpp leen xam ne mbir moo xew ci tribunal bi ñuy xool lan moo xew ci tribunal ba boole leen ñoom ñaar jàpp kon taxawaay bii du am dañuy xam ne yoon moo yor mbir yi di ko doxal waaye nag justice à deux vitesses bi mooy li nga xam ne mooy suñu naqar mooy li ñu metti ñu di leen xamal ne nag tudduñu ci sëriñ bi ngir bëgg a tuumaal sëriñ bi ngir bëgg làqatu ci sëriñ bi waaye moom dundam gépp sëriñ Tuubaa la ko jox loolu moo ñu ko jaral tey ñëw kër sëñ gi ànd ak waa kër sëñ yi nga xam ne jëmm juy caaxaan du leen jaral ñu déplacé wu ñëw fii muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw ci biir taw bi la ñëpp xuus ñëw fekk si ñu fii ngir ñu def point bii kon jëmm ji ñuy waxal moo ñu ko jaral ci ay qualité am koo wax ci Sénégal xam ne ko muy jëmm ju yaru jëmm ju baax jëmm joo xam ne kooko wax lam lay njëkk a wax mooy lii ndog la lu dal ci kawam. loo xam ne mën nañoo jàpp ne suñ borom da ko cee jaare ngir yëkkati ci ay darajaam yëkkati ci ay tawféexam ndax jëmm joo xam ne diirub la may nekk ca tribunal ba nit ko fa mës a ñëw di nga xam ne liggéey na ba liggéey liggéey boo xam ne daaw doon liggéeyam ngir bëgg lu baax ndax bañ koy yóbbu ci tribunal dañ koy yóbbu woon comme ASP waaye yàlla dogal ñu gis ay capacité am gis xam-xamam gis xarañteefam gis ak njubam akuk baaxam moo tax procureur yi jël ko yóbbu ko bureau enrôlement te enrôlement ko ko xam xam ne liggéey bu rëy la mu liggéey fa ne lu ëpp juróomi at yoo xam ne musta def lu mel nii kon kenn ku ci nekk war naa xam ne lii ñuy tudd nii ay sos la ay mbir la yoo xam ne dara nekku ci lii nag moom la ñu bëgg a daane la kàddu yi mooy képp koo xam ne war na koo yëg ci Sénégal ak ci njaarim gi ñu nekk ci kilifay diine ak kilifa yi aada wax nañ leen ko waaye nag nañu xam ne procureur bii nga xam ne moom moo def lii na xam ne bis bu ñu poussé ba ñu sës ci miir bi dañuy wëlbati ko jàkkaarloo ak moom luñ ci jëlee ñu xam ne loolu lañ ci jëlee ndax ñi ngi muñ suñu kéemtalaay kàttan ñi ngi ànd ak suñu sago suñu kéemtalaay kàttan ndax ku fekkee keroog bañ koy jëlee ci tribunal bi di ko yóbbu di nga xam ne jëmm ji jëmmi nit ñi la ñi taxaw fii nga fii gis yëpp mënoo fay gis ndeyam mbaa baayam ñëpp dañ leen wax dem leen ngeen toog ndax nitu nit ñi la daan sonnal nit ñi nit ñi daan sonnal nag ñii fi taxaw ni ñoo ci gën a tuuti waaye am ñu am kilifa moo taxaw ñu toog di déglu suñuy kilifa danañ leen déglu nag ba altine jàpp talaata waaye nag li ñu bëgg muy préfet muy gouverneur ak ku mu mën a doon koo xam ni kilifa la ci njaareem gi mu àddu ndax ku àdduwul di nga atte te mën ngaa atte atte ba du neex lii ñuy wax nii suñu xol lañ koy waxee te lii may wax nii kenn ku fi jëloon tey mën naa wax lu ko gën a kawe loolu ndax la ñu naroon ak initiative yañ amoon gënoon naa kawe lii waaye nag ñoo ngi fas yéene doon ay taalibe fas yéene doon ay citoyen jaar fi yoon wax jaar ni ñu ko sëriñ bi waxee kon ñi ngi ciy ñaan képp koo xam ne yàlla dogal na mu man dara ci dossier bi ñu ngi ko ciy ñaan di delloowaat lépp nag kàddu yi ak cant gi yëpp di ñaanalaat Serigne Fallou fallu nga xam ne moom moo fi nekkal Cheikh Mouhamadul Muntaka ci kàddu yu nga xam ne jox nañu ko ci la ñuy wéy di ñaan mbokk taalibe yi yëpp itam fu ab murit mën a nekk fu ab taalibe mën a nekk fu ab jullit mën a nekk muy fexe di déggante ak ñii nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu nekk ci biir dossier bi ngir ñu boole suñuy doole te xam ne itam mu Cheikh dul Fadal wax nañu kaddu goo xam ne ba ñu fay jógee moom la ñuy daanalee def nañu wallu walluk suñ borom moo ëpp doole wallu koo mës a gis yàlla na ko suñ borom wallu